ko mbokk jullit yi ñu ngi ñëwaat ak yéen ci téere bi ñuy wax al arbaina nawawiya ginnaaw buñ firee xadiis bu njëkk bi ñuy ñëw ak yéen ci xadisu ñaareel bi mu ne al xadisu saani lii mooy xadisu ñaareel bi an omar jëlee nañ ci omar radiallahu anhu yàlla gërëm aydan ba tey la tax mu ne aydan ndax xadis bu njëkk bi ci omar nañ ko jëlee xadis bu ñaareel bi tamit si moom nañ ko jëlee moo tax mu ne aydan ba tey xoola wax na moom Omar baynama nahnu ba nga xamee ne ñun juluusu way toog leen inda rasulillahi si yenentu yàlla bi salla yàlla na dolli xéewal allahu yàlla si moom wasallama tamu dolli ko mu musal zaata yawmin benn bis amar mu ne ab bis dafa ñëw ñu toog ak yenent bi sallallahu alayhi wa kon yenent bi sallallahu alayhi wa dafa doon toog ak saxaaba yi kilifa dafa war a toog ak ñum yëlif di leen laaye biir di leen xamal seen wàllu diine Omar mu ne benn bis ab bis dafa ñëw ñu toog ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam istisansa talaa feeñ na alayna si ñun rajulun ab góor shadidu bayaadi siyaabi ku tat weex yére shadidu sawaadi shaar ku tat ñuul karaw mu ne benn bis dañaa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si saas rek benn góor ñëw sol yére yu weex tàll karaw gi ñuul kukku bala ñoo jàll naa leen xamal kooku jibril la dana ñëw si fin xadis bi mu ne laa yura gisuñ alayhi si moom asaru safari jeextalu tukki wala yaarifuhu te xamut ko min si ñun ahadun kenn mu ne góor gi bu ñëwee yére yi dafa weex tàll karaw gi ñuul kukku te gisuñ si moom jeexitalu tukki mooy koo xam ne dafa jóge si tukki te ñun ñëpp kenn xamu ko si moom rek dafa mel ni koo xam ne dafa jóge si benn néeg rek ñëw toog karaw gi pëndut yëre pëndut ndax gisuñ si moom koo xam ne si tukki la jóge te ñu mbooloo mi kenn xamu ko si kon saxaaba yi gis nañ malaaka kon nit bu la waxee gis naa malaaka bu ko weddi boo ko weddee loolu ñeme yàlla la mun nga ko gëm boo ko gëmul nga rafet ci moom njortu ndax yonent bi sallallahu alayhi ne sallam nettal nañu benn waay mu ne dafa jugoon di seeti mbokkam bu mu bëgg ngir yàlla rek te yàlla tax mu dem ba ci yoon bi malaaka dajeek moom mu ne ko foo mu ne ko damay seeti sama mbokk dama kaa bëgg ngir yàlla rek te yàlla tax léegi malaaka bi ne ko yàlla bëgg na la comme ni nga bëggee sa mbokk boobu kon ku kon kan moo ko xamal yàlla bëgg na ko malaaka moo ko xamal léegi bu ñëwoon si yow ne la man yàlla bëgg na ma da nga koy laaj ana sa tegtal si alquran wala sunna déedéet jibril bu ñëwee xataa jalasa ba mu toog ila nabi jëm si yenent bi salla yaa na dolli xéewal allahu yàlla alayhi si moom wa sallama tam dolli ko musal fa asnada mu wet rukbatayhi ñaari bëti oomam ilaa rukbatayhi jëm si ñaari bëti oomu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wa wadaa mu teg kaffayhi tenqam ala faxisayhi si ñaari luppam jibril bu ñëwee mu lay jàngal nit buy jàng nan lay toogee yan teggin lay am bu ñëwee dafa toog jàkkaarloog yenent bi sallallahu alayhi wa mu ñël ñaari bëti oomam soslante ko ak si bëti oom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon suy jàng dafa war a toogee noonu sukk ñaari tànkam jël jàkkaarloog koy jàngal jël ñaari loxoom teg ko ci kaw luppam léegi jibril bu mu defee loolu pare lan la wax mu ne wa qaala mu wax moom jibril yaa muhammad yow muhammad axbir ni xibaar ma an il islaam si lislaam fa qaala mu wax ko rasulullahi yenent bi yàlla bi salla yal na dooli xéewal allahu yàlla alayhi si moom wasallama tamu dooli ko musal mu ne ko al islaamu l'islaam mooy lan an tashhada mooy nga seede ne an laa ilaha amul benn buur bu ñuy jaamu jaamu ko mu lay njëriñ ñàkk jaamu mu lay lor illallah bu dut yàlla wa anna muhammadan nga naka muhammad rasulullahi yenent bi yàlla la wa tuqiima salaata nga taxawal julli wa tuutiya zakata nga joxe azaka wa tasuuma ramadana nga woor weeru koor wa taxujjal bayta nga aj màkka in istataata nem antan nga ilayhi si moom sabilan yool jibril bu ñëwee mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xibaar ma si lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko lislaam mooy nga seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu jaamu ko mu lay njëriñ ñàkk ko jaamu mu lay lor budut yàlla nga seede ne muhammad yonent bi yàlla la yàllaa ko yónni na taxawal julli joxe azaka woor weeru koor aj màkka bu dee mën nga ko léegi yii yëpp nag bu dee gëmoo ko booba doo jullit yooyu yéeféer nga bu dee gëmoo julli boobaa yow doo jullit waaye bu dee gëm nga julli waaye danga kaa bañ a def booba dañuy bàyyi ba waxtu julli jot ñu digal la nga julli boo julliwut ñu rey la waaye bu dee danga ko gëmoon ba pare weddi ko boobaa dañ lay tuubloo ñett fan boo tuubut ñu rey la bu dee nag gëmoo asaka kon booba yow doo jullit waaye bu dee gëm nga ko waaye danga nga koo bañ a def kon boobaa dañuy nangu sa alal bi génnee si asaka bu dee nag dañ koy nangu mënuñ ko nangu dafa laaj xeex comme boobaa dañuy takk xare xeex ak yow koo rey duñ la rey waaye koo rey dañ koy fay si yow waaye bu demee nag ba nga xam ne rey la rek moo des comme booba dañ lay rey te yow koo rey si yow nañ koy fayu waaye nag bu dee moom dafa gëmoon azaka dem ba ci kanam mu jàll bi ku weddi ko kon kooku dañ koy tuubloo ñett fan bu tuubee baax na bu tuubut ñu rey ko mu ne wa tasuuma ramadaana moo war weeru koor bu dee gëmul koor comme boobaa du jullit waaye bu dee gëm na koor waaye daf ko bañ a daf kooku moom dañuy bàyyi ba nga xam ne yéene woor rek moo des ñu yéene loo ko mu woor bu woorut ñu rey ko waaye bu dee nag gëmoon na ko mu jàll bu ko wéedu ko kon kooku dañ koy tuubloo ñett fan bu tuubut ñu rey ko wata xujjal bayta mu aj màkka in istataata ndem antan na ilay si moom sabilan yool stop mooy nga aj màkka bu dee mën nga ko bu dee gëmul aj màkka kon boobaa moom yéeféer la du jullit waaye bu dee nag gëm na ko waaye daf ko bañ a def kooku aj màkka giir dundam la wàccul ko giir dundam la dañ koy bàyyi yàlla waaye bu dee daf ko gëmoon nag mu jàllal bi ku weddi ko kooku dañ koy tuubloo ñett fan bu tuubu ñu rey ko yii yëpp ku ko weddi yéeféer nga waaye bu dee da ko koo gëmoon ba pare jàllar bi ku weddi ko comme boobaa dañ lay tuubloo ñett fan boo tuubut ñu rey la xoola mu wax ko moom jibril sadaqta wax nga dëgg fa ajib naa ñu yéemu lahu ñeel leen yasaluhu mi ngi laaj wa yustadiquhu muy dëggal bu ko yonent bi sallallahu alayhi wa tonte waxal ko lan mooy lislaam ba pare jibril ne ko wax nga dëgg saxaabay yéemu ñu ne kii mi ngi laaj ba pare di dëggal ndax laaj dafa am ñett xaaj dafa am laaj boo xam ne da ngay laaj pour gàgganti ki ngay xam di laaj pour gàggant ngay laaj am laaj boo xam ne da ngay laaj pour jàngale am laaj boo xam ne moom da ngay laaj pour xam jibril nag moom dafa doon laaj pour jàngale xoolam wax ko moom jibril mu ngi jàll si beneen laaj fa axbir nii xibaar ma anil imaani si ngëm yàlla xoola mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an tuumina mooy nga gëm billaahi si yàlla wa malaikatihi ak malaakañ wa kutubihi ak téere wa rusulihi ak yonente yi wal yawmil axiri ak bisi penc wa tumina nga gëm bil qadri si dogal xayrihi bu neex wa sharrihi ak bu naqari xoola mu ne ko sadaqta dëggal nga jibril ne ko xibaar ma si ngëm yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mu ne ko mooy nga gëm yàlla saxal ko lu war ci moom dàqal ko lépp lu jomb ci moom bu stop mooy nga gëm malaakey bu stop mooy nga gëm téere yëpp téere yëpp nag waxoon nañ ko ci laxdari bu stop mooy nga gëm yenent yi yàllaa leen yónni bu stop mooy nga gëm bisi penc dana ñëw bu stop mooy nga gëm dogal bu neex ak bu naqari waaye nag nit ñi tàmm nañ su leen yàlla xéewalalee ñu sant ko waaye su leen yàlla tegee nattu ñu ne man lu ma def yàlla loolu baaxut bu yàlla bu la yàlla xéewalalee danga kaa war a sant bu la tegee nattu tamit danga kaa war a sant ndax mu gaala la ko teggin xoolam wax moom jibril fa axbir xibaar ma anil ixsaani si rafetal xoola mu wax moom bi sallallahu alayhi wa sallam an taabuda mooy nga jaamu allaha yàlla ka annaka ba mel ni yow taraahu yaa ngi koy gis fa in lam soo nekkut taraahu di ko gis fa innahu naka moom yaraaka mu ngi lay gis mu ne ko xibaama si rafetal jibril moo wax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko rafetal mooy nga jaamu yàlla ba mel ni yow yaa ngi gis yàlla su dee eggoo si maqaama jaamu yàlla ba mel ni yow yaa ngi gis yàlla nga jaamu yàlla xam ne yàlla mu ngi lay gis xoolam wax ko moom jibril fa axbir ni xibaar ma ani saati si bisu penci xoola mu wax ko moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mal mas'uulu déet ku ñuy laaj an haa si bisu penci bi aadama di gën a xam mani saail si kuy laaj mu ne ko ku ñuy laaj gënta xam kuy laaj wala am na ñu ne daf tamit ñun ñaar ñëpp kenn xamut xoola mu wax ko moom jibril fa axbir nii xibaar ma an amaaratiha si mandargaay bisi xoola mu wax ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an talida mooy mu jur al amatu jaam rabbataha boromam wa antara boo gisee alxufaata way fàndaa ñi mooy ñu dut sol dàll ñu alxuraata way rafle ñi mooy ñu amul yére alaalata way ñàkk ñi ria asha yi ña doon sàmm gàtt yatataawaluuna ñuy guddalante fil bunyaani si tabax mu wax jibril mu wax yént bi sallallahu alayhi wa sallam ma si màndargaay bis penc yént bi sallallahu alayhi wa sallam bu demee ba jàmbu jigéen jur boromam loolu nag am na firi yu bëri waaye xam naa si jël ñaari firi rek am na ñu ne antali antalidal amat rabbataha mooy bu alal damee ba bari ba doom mën a jënd yaayam am ñu ne mooy bu jaam damee ba bari ba sang yi di sëy seen jaam am ñu am ak moom doom doom bi bu sang bu seen sang génnee àdduna doom ji goreel seen yaay ñu ne kon ñaari fir yooyu lañ si wax mu ne wa antara mu ne boo gisee loolu rek nga xam ne bis bisu penc jege si na mu ne ko wa antara boo gisee alxufaata way fàndaan ñi mooy ñoo xam ne duñu sol dàll aloraata way rafle ñi mooy ñoo xam ne amuñ yére yuñ sol alaalata way ñàkk ñi raa asha ñu doon sàmm gàtt yatataawalu na ñuy gëddalante fil bunyaani si tabax rek nga xam ne bis peñ jeges na mu ne boo gisee boo demee ba gis way fàndaan ñi mooy ñoo xam duñu sol dàll ak way rafle ñi mooy ñoo xam ne amuñ yooyu yuñ sol ak way ñàkk ñi ak ña doon sàmm gàtt ñi guddalante si ay kër di guddalante si ay kër rek nga xam ne bisu penc jege si na su man talaqa topp mu dem moom jibril fa la bistu masax maliyan ab diir su ma xoola topp mu wax yaa umar yow umar atadri ma ndax xam nga mani saailu kuy laaj xultu ma wax allahu yàlla wa rasuluhu ak yeneen tam aalamu ñoo gën a xam Omar mu ne après Jibril dam man ma sax ab diir yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ma yow Omar ndax xam nga ku doon laaj saxaaba yi nag dañaa amoon teggin mu wax Omar ne ko yàlla ak yenentam ñoo gën a xam xoola mu wax ko moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu naka moom Jibrilu Jibril la ataakum dikkal na leen yuallimukum leen di jàngal diinakum seen diina yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko kooku jibril la dikkool dikkaloon na leen di leen jàngal seen diina kon jibril dafa ñëwoon di laaj dafa xam di laaj pour xamle kon xadis bi rawaahu soloo na ko muslimun muslim kon lii moo nekkoon darsu tay bi in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu